honorable euh, Juliette Zenga ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. waa ñu ngi lay di gërëm Elisabeth. Euh, mhm. bi ngeen ma jox euh, ci micro bi ñuy màggal bés bi nga xam ne dañ ko jagleel famille yow ñu yàgg laa gis ci xeex ngay ànd ak femme leader yi waaye activistes yi ci ay ponk yu bëri jëm ci li jëm ci famille tey ñu bëggoon a xam ban importance la famille rôle am am ci tey suñu société traditionnelle yu ñu am. waaw damay complété rek balaa may dugg ci loolu ne la man mii dama nekk député assemblée mais dama bokk ci commission bi ñu tuddee santé muy wër gi yaram. Mhm. muy euh, population muy lépp ñi nga xam ne moo tëdd suñu dëkk waaye tamit muy affaire sociale mhm. ak li ñuy wax solidarité nationale. Mhm. ci réseau bi nga xam ne mooy réseau population développement bi nga xam ne ne dañu am kuréelu bu tudd euh, UNFPA. boo xam ne ne ñoom dañuy liggéey ak ñoom ci fànn yooyu donc li nga xam ne dañ ko wax mooy que ne bés bi nga xam ne dañuy sargal bésu famille. Mhm. mooy bi nga xam ne ne que tey loolu moom mooy toog nga xam ne ne nañu sukkandiku pour defar li nga xam ne tey moom mooy sunu nation moom nañu tuddee Sénégal ndax fépp foo dem dañu naan teraanga sénégalais teraanga boobu nga xam ne dañu ko jagleel du ñu ko wax mooy sunu obité lu tax ñu mun ko mooy dafa am fu ñu sukkandiku am fu ñu toog te fi ñu toog mooy ñun suñu famille mhm. donc lu wax dëgg yàlla bu ñu toogee ba tey ñu ne dañ koy sargal dafa nekk lu war mhm. ndaxte que ci biir sargal boobu war nañu di làbbali xel yi pour wane ne que lii nga xam ne mooy suñu toogaay te ñëpp di ñu ko ñeewee te muy famille dafa am loo xam ne ne que mooy suñu doole. donc suñu doolee boobu nag waruñu ko teg fenn dañ ko war a toujours di ci veiller pour que suñu toogaay gën a rafet suñu développement gën a rafet lii nga xam ne dañ koy wuti muy émergence nga xam ne ne que du fépp nañ ko war a dooree lu dul ci famille donc ñu gis ne que daal lool lu am solo la. ndax euh, foogoo ne honorable bés bi màggal ko dañ ko gën a war a fullaal ngir fàttali nit ñi lan mooy importance su famille. waaw am nga tey le quinze kenn xalaatu ko ku nekk xëy na yaa ngi ci leneen. Mhm. nit jóge nañu ci korité bi nga xam ne maa ngi déwénal population bi yëpp. Mhm. nga xam ne nag wax dëgg yàlla ñëpp xëy na ñu ngi toog seen kër waaye yéen a ngi veillé di xool di jox nit ñi opportunité ñu wax ci maa ngi leen ci déwénati mhm. donc di ñaanal ñëpp gudd fan ak wër gi yaram ak tal fekkeek wër ak wër gi ak teraanga bi ba mu wër allah mhm. donc de telle sorte que ne tey bu dee bés bu toll nii mu am te kenn santiru ko ñu koy sargal donc loolu war nañu remettre en cause suñu bopp ndaxte nag wax dëgg yàlla am nañu ay jumtukaay jumtukaay yu mel ni comme télé yi ngeen def mhm. comme rajo yee comme euh, lu bari loo xam ne ne que tey à commencé par ñi euh, nga xam ne ne que gouvernement bi la mhm. ak ñi nga xam ne ne ñoom ñoo nekk famille bi yooyu yore ko mhm. ñu war ko mun a maanaam màggal ko ba nga xam ne ni ñëpp war nañ ko di si sànni xel tépp mhm. foo toog buy ñëw rek ñëpp war ci war a mun a jublu mu nekk ci association yi mu nekk ci groupement yi mu nekk ci fépp boo xam ne nit ñu fay toog di wax wàllu famille ñu war ko mun a préparer sargal ko comme ni ñuy def rek journée de la femme mhm. comme ni ñuy def euh, fête des mères comme ni ñuy def leneen ak leneen mhm. donc dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a di ko marga teg ko benn bés boo xam ne ne dañ ciy wax te même mun mun a nekk sax président wax ci telle sorte que ñu xam ne ne que loolu mooy sunu toogaay parce que loolu du tey la date loolu ñëpp a ko fi fekk dañu fekk suñuy mamaat ak mamaat di ko def di ko sargal jox ko cër ndax cër boobu ñuy jox famille loolu moo tax ne que Sénégal macha allah bu ñuy wax jàmm ci cooku ñu xam ne ne que ci famille la doore. tey ñu fekk fii li fi maam yi bawoon démb waaye mu mel ni xarale yu yees yi dafa am lu mu ci soppi ban plaidoyer ngay def ci mbir moomu justement. xam nga fu mu nekk am na lu bari ndax boo jëlee suñu dëkk tey dañoo bokk ak suñuy naataango. Mhm. boo déggee ñu naan am na diplomatie tey Sénégal mënatul demal boppam dëkkee rek si ñun ñi nga xam ne ne ñoo ñu wër dëkk yi ñu wër boo demee ci yeneen dëkk yi nga xam ne ne wëruñu waaye ñoo bokk ñun fi Afrique bi nga dem ci yeneen ñoo xam ne ne ñoo bokk au niveau international da ngay gis ne am na lu bari loo xam ne ne ñun dañ koy waxandoo nu róole ko hmm. mais am na noo xam ne ni ñu koy defee bokkul donc bu ñu ñëwee dafa am coppite yoo xam ne dañ ko war a mën a def ci suñu waay tëral li ñu dëkk hmm. donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne ne que dañ ci war a mun a gën ko dëgëral gën ko fulaay ndaxte bu ñu dëkk bu demee ci dëkk daal di ko chiffé maanaam nangu ne que dinañ ko doxal hmm. te boo ñëwee ci dëkk bi méngalewuñu ko ak li nga xam ne ñun moom nañuy doxalee day am jafe-jafe te suñu dëkk toujours bu génnee dafay nekk loo xam ne ne que toujours dañ ko koy rappelé maanaam di ko wax ne que yow kat chiffé woon nga fi lii waaye ba nga demee sa dëkk defoo ko mhm. donc yooyu dafa nekk lu am solo bu ma jëlee tey code de la l'enfant mooy maanaam charte bi nga xam ne dañ si sukkandiku mhm. pour mën a gën a xoolaat suñuy njaboot mhm. aar suñuy njaboot suñu dëkk ba tey jii ñu toog di ko wax defaraguñu ko. te bés bu fan la combat boobu toll ñu giseen leen ci yéen ñi euh, femme leader yi activistes yi ak ñu ci bëri ñu taxaw ci combat boobu tey fan la toll. waaw combat boobu def nañ ci parce nañ lu bari ak ñi nga xam ne nekk mooy ministère yi. donc muy ministère de la famille de la justice ñun ñuy wax ay AGS ak ñeneen parlementaires yi mooy maanaam député yi kenn bàyyiwu leen ginnaaw mm-hmm. donc de telle sorte que ne dañ ko liggéey ba mu yegg fenn ñu ne mu nga ca secrétariat général du gouvernement donc ñun dañuy toog ndax xam nga ñun du ñu liggéey rek mu yegg si ñun dafa am maanaam fu muy jaar fu ñuy ne xoolaat est-ce la ñuy wax méngale na ak ñu ñuy suñu charte réew mm-hmm. ak ñu bareek bare balaa ñu koy teg ci conseil des ministres pour mu war a mën a yegg ci assemblée mm-hmm. donc ñun bés bu nekk fu ñu dajeeg ñoom dañ leen koy rappeler donc de telle sorte que ne loolu mu bugg nañu ko état bi wax dëgg yàlla taxaw si ba nga xam ne bés bu demee tey ci ay conseil des droits jëmee ak ñoom yi PMT nga xam ne kenn du ko ko wax donc dina fekk ñun suñu dëkk ñu teg ko parce que ñun lañ njëkk intéressé ñun lañ njëkk soxal mm-hmm. parce que suñuy njaboot il faut ñu aar leen ndax liy xew ci njaboot su mu nekk nii mënul nekk da ngay gis xale yi dañ leen di liggéeyloo xale yi jàngatuñu xale yi ñu ngi leen di agressé xale yi di leen jëfandikoo xale yi di leen jox mariage boo xam ne nekk du ñu yegg sax fukki at ak juróom-ñett mm-hmm. donc euh, des fois dañu naan fukki benn mais ñenn ñi fukki at ak juróom sax fekk nañu joxe yi te loolu yëpp nekk loo xam ne a mën biir code boobu pour que suñuy famille ñu protéger leen. Mhm. leneen ah, li mhm. muy ci code de la famille bi. Mhm. code de la famille bi tey dañu doon wax ndaxte que dëgg la ne que buñ lay mayee dañ naan la kat jëkkër ji moo lay defal lii jëkkër ji moo lay defal lii jëkkër ji moo lay defal lii waaye tey boo xoolee ci jamono ji jëkkër amatul mënatul ceinture ba comme ni ñu koy waxee takk ko bu baax sax mënul donc jigéen ji mooy ñëw pour mun a mottali yéen yi boo nekkee nag fenn di ko mottali comme ni président defoon tey boo ñëwee yow jigéen nga am beneen nationalité bu dul sa jëkkër mun nga jox sa njaboot mu am nationalité bi comme tey noonu nga xam ne nekk tey bu jëkkër ji jëndee ceeb mhm. jabar ji jënd duulin mhm. bu jëkkër ji ñëwee toog xëy na déclaré na xale bi mënul fay école jabar dina fay école mhm. donc am na loo xam ne tey ñoom njaboot gi ñoom ñoo ko séq comme ñoo ko séq nag waratul ñu taxaw ne puissance paternelle mooy maanaam lépp ci kër gi jëkkër ji la dañu ne responsabilité parentale mooy maanaam jëkkër ak jabar ñoom ñoo séq kër gi ñoom ñoo war a lijjanti kër gi ba tey bu dee jëkkër mënul gi jabar mën a gi ñu ngi ci doon liggéey te bëgg nañ loolu yëpp ñu war ko mën a maanaam defaraat parce que code bi mi ngi fi waaye code bi dafa am loo xam ne ne dafa manqué ñu war ko mën a mottali gën ko defaraat defaraat toogaayam. honorable mbaa jàpp ngeen ne yenn ponk yi nga xam ne ñu ngi koy wax pour ñu soppi ko ci code de la famille bi dina jàll parce que ba combat bi euh, gënee am doole lool euh, déggoon nañ ci ay religieux ñu génn ne li ni mel àndul ak suñuy ñuy waaw suñu diine mooy la suñu ba mu njëkkee wax suñu diine dafa jox solo mm-hmm. tey bu ñu demee ba tey diine boobu nga xam ne lu bari mu koy bàyyi di ko fay ci li nga xam ne ne moom mooy toogaay bi donc il faudrait que ñu toog moom li ñu wax ne que bés bi dafa am solo que ñuy rappeler lu bari mm-hmm. te warul nekk rek ñu toog la quinze fukki fan ak juróom ci weeru mais ñu koy rappelé dafa war a nekk loo xam ne ne suñuy tëleeg lépp dañ ko war di ko def mu am ay message yuy jàll mhm. parce que li nga xam ne ne que diine bi wax na la mooy ne que lii famille dañ ci war a toog xoolaat ko defaraat ko maanaam consolider ko donc de telle sorte que ne loo xam ne da ko am téye sa loxo boo deful nànk di ko sàgganee day wadd te nag bëgguñu mu wadd li nga xam ne dañ ko am loolu religieux yi di wax loolu moom la ñëpp bëgg moom la ñu bëgg taxawal pour gën a mun ko nemmee ko gën a defaraat toogaay loolu loolu moom mooy soxal bi du xeex parce que boo fi jëlee parité bi mhm. tey bu ñu demee fenn di dem élection nañ def góor def jigéen mhm. loolu fii biñ ko fi waxee ñu bari ñoom jógoon nañ ñoom religieux yi jógoon nañu waaye gis nga ñoom lañ doon def muy maanaam ay appréhension li ñu doon xalaat ne ñun kat dañuy wax ni waaye leneen nañu bëgg nangu pouvoir du góor amul ñun li ñu bëgg mooy que ne que nit ku ci nekk xam na ne que dëkk bi ñoo ko seq ñoo ko bokk. Mhm. suñu constitution dafa ne góor ak jigéen ñoo yem. ñoo yem ci wàll lépp loo xam ne da ngay gis jigéen bu jàng am diplôme am góor jàng am diplôme am te des fois jigéen bi jàng ba am diplôme bu ëpp bu góor bi ñu jël góor bi teg ko ci place am. Mhm. ci parité bi bi ñuy wax dañ nekk tey bu dee dañuy dem di fal bu dee dafa am benn poste nga gis jigéen boo xam ne am na ko mun na ko dañ ko ko jox. Mhm. waaye dañuy teggi jigéen bi dem jox ko góor bi. loolu nañ ne que yooyu warul am parce que tey waruñu toog sax di wax ay genre mooy mooy naan politique bu bees bi ñu ne genre genre du jigéen parce que da ngay dégg ñu naan la yow kat yéen ay ay yëfu jigéen rek ngeen di toppatoo du yëfu jigéen dañ ne genre góor ak jigéen tey ministère yëpp boo ci jël mhm. am na yu genre parce que ministère yooyu dafay tax ne que biir foofu liy avancement li nga xam ne nit ñi dañ koy def ñu wacc bët gët ci ku ne. Hmm. ñu xam ne ne kii kat mérité na ko waaye waccee loolu rek ñu taxaw fii man mi benn gënumaa nekk jullit dama respecté sama religion. Hmm. du jox samay religion man nekkuma sax pour ñii di interpréter religion nekkuma hmm. waaye li ci am solo mooy que ku nekk nañ la jox et je crois que religion yi ci foofu la ñuy jëm veillé ci loolu surtout nañ ci veillé parce que interprétation moo yàq dëkk bi te interprétation yooyu tey amul lu ñu njëriñ ndax li nga xam ne ne que yi moom la ñu bëgg. ñëpp sunu famille teranga bi nga xam ne ñëpp dañ koy tuddee fee nañu commencé teranga bi biir famille yi ñu xam ne ne famille yi moom mooy mbubbu sunu société mhm. moom mooy mbubbu développement bi bés bu ko bëgg lu sax dax boo ko amul ci biir famille doo ko am ci biti mhm. donc loolu kon dafay leer pour ñëpp honorable gisaatoon nañ la ci beneen xeex muy euh, li nga xam ne mooy loi bi criminaliser viol euh, te ji gannaaw bañ ko voté at ak euh, promulgué ko ndax gis ngeen lu ci soppeeku ndax nemmeeku ngeen ne cas de viol a wàññeeku wala dafa gën a yokk. loolu de point bu am importance nga wax parce que xam nga loolu da nga voté deful na at. Uh-huh. ñu voté ko nag tombé Covid bi am ci. Uh-huh. waaye ci biir Covid bi dégg nga problème mu bu yool yéeg pédophilie yeeg. Uh-huh. harcèlement lu nekk ngi fi ak inceste yi. donc ça veut dire ne jógee gu fi. parce que bi ñuy voté loi bi am na ñoo xam ne ñu ngi ko fa am ñu jàpp leen ci loolu ñu teg leen fi parce que mënuñu leen woon juger ndax euh, li fi xew muy nga xam ne moo xew au niveau international muy donc nag bii nga xam ne nekk na ñun suñu biir dëkk gis nga ne ko yëf bi dafa gën a law dafa gën a law ndaxte que ci Covid bi muy feebar bi am da ngay gis nit ñi ni ñu dëkkee toujours ñu ngi toog seen biir kër ba wax dëgg yàlla xel yi da nga defee nekk mesure yi compression bi am noonu mhm. ak dëkkuwaay yu xat yi donc loolu gis nañ ne que loolu gën a amaat donc loolu fi mu nekk nii li ñuy wax mooy que ne nañu gën a jëmmal loi bi mhm. ndax fii comme ni nga ko waxee ci religieux yi am na góor yoo xam ne nee nañu loi bi biñ lii ñu voté góor yi dañ leen teg fii di leen bëgg néewal biir loi bi mhm. te yàlla xam ne ne que loi buñ koy voté amul góor amul jigéen ñëpp ko moom ndax gis nañ fi jigéen yoo xam ne dañuy agressé góor yi def tamit loi bi day dal sa kaw donc de telle sorte que ne tey li ñu war a mën a def mooy ñu war a mën a taxaw ndax gis nga keroog bi ñu ko voté président de la république tamit promulgué ko dañu ne mhm. organisation féminine ñëpp ñu ngi woon sa assemblée boo leen tegee loolu boo leen ko seetaanee dañu ne woon que tey li nga xam ne ne dañ leen koy jox comme digle mooy que ne il faudrait que ñu war a mën a jàppale gunge ñi nga xam ne ne am nañu problème bu surtout bu mhm. Mhm. a loolu day ñàkk ci yenn gox yi parce que fañ la ko defee fa nga war a dem day nekk loo xam ne ne du tànk ndox ci ndaal rek danañ donc il faudrait que au niveau du gouvernement ñu veillé ne que mhm. war nañu mën a am ay structure poste de santé case de santé benn koo xam ne ne di nga fa dem mu jege population yi pour loolu mhm. te loolu wax dëgg ba bi ñuy wax ba léegi dafa am gox yoo xam ne ne jafe la ko booy jëlee li nga xam ne ne mooy police ak gendarmerie mhm. a defal. Mhm. donc des fois nit ñi duñ fa ne. wala poste ba sax dafay sori ak dëkkuwaay. boo jëlee tamit ñi nga la ko defal léegi. Mhm. yow da ngay rus da ngay bëgg nëbbatu. doo ko bëgg wax sax say waajur des fois bu dee sa waajur nekk nañu ñoo xam ne ne que dañoo métti. Mhm. dañ lay yuuxoog di def yenn yi ak sa surtout nag ñi nga xam ne ne que boo ko amee ni war a mun a dem ñu nekk ñi nga am dañuy waxtaan ak yow ci wàllu xel ba indi la pour nga war a mun ko def yooyu yëpp dafa am nekk ay manquement. de telle sorte que ne war nañu mottali yooyu gunge suñu état pour que ñu war ko gën a def ndax ndax gis nga population. Mhm. boo amee say doom ñu leen di agressé di leen torturer di def yenn yeeg yenn yi mooy yenn jëfinu agression yu yu baaxul yi. Mhm. loolu dafay nasaxal. Mhm. sa population. te nag lii muy ay criminalisation bi dafa nekk loo xam dañ ko war a def. organisation féminine yi ba ñu ko voté ñu def ko. seen taxawaay tey man maa ko wax te wax nañ leen ko ci wàllu Covid bi ak problème bi mu fi amoon bii yàggul. ne leen ko seen taxawaay kenn gisu ko. parce que gis bi mooy que ne bu amee dara. dañ ko tooñ mhm. góor bi moo tooñ wala dañ ko tooñ da war a taxaw gunge ko ba problème boobu ñu régler ko mhm. teg ko ci yoon ba nga xam ne nekk dinañ xam ne nekk kat lii gis na solution mais duñu gunge loi ba yegg si fii mhm. di bàyyi loi bi pour loi bi di doxal boppam ñoom dafa war a nekk comme ni ñuy wax euh, benn xeexu de veille boobu nee naa loi bi dañ ko fekkoon ak ay organisation féminine ñoo xam ne xeexoon nañ ci seen wàll député yi xeex seen wàll parce que nag bu ñu fàtte ne que député dafa toog assemblée bu ndaw lañ jóge mhm. donc lu ñuy wax ci loi bi rek dafay toucher ñu bari ci famille yi foofu donc nag gunge boobu nga xam ne dañ ko wax ci loi bi mhm. lu ñu gunge loi bi am gët yoo xam dañ koy sànni pour que loi bi bu gëstoo xam ne ne que ah ñii kat ma voté woon ñu ngi nii di xool est na ma doxee noonu la wala doxeewu ma noonu mhm. donc loolu moo tax ne que tey organisation féminine yooyu nga xam ne ne dañ fi nekkoon tey dañoo daw moo naan kenn gisatu leen ci ñu wax ci wàllu loi bi il faudrait que loolu ñu war ci mun a jóg budget administratif mhm. di fa def benn atelier ci wàllu pétrole ak gaz bi waaye gis naa ne ministère de la justice woo na ñu bari ñu wax ci wàllu loi bi mhm. donc de telle sorte que ne dafa am importance pour que ñu war ko mun a teg ndax boo jëlee ministère de la famille tey mhm. liggéey na ci lu bari ndax loi bi coppi na ko def ko ci defe naa juróom benni langue yoo xam ne ne que fii ay kàllaama yu ñuy wax ci suñu biir dëkk la te loolu dafa am solo pour que nit ñi xam lan la ñuy wax ak fan nañu jëm ak lan nañu bëgg parce que li ñu bëgg mooy que ne lii nga xam ne nekk dañ koy def di violer xale yi di violer même mag da ngay gis tey ku ndaw jóg dem di violer mag hmm. donc yooyu mu nekk loo xam ne ne ay baaxul si dëkk dañ ko ci war a mën a génne ndax dëkk boo xam ne ne que yooyu def ko am hmm. day néewal suñu dëkk te bu ñuy wax ne que tey développement durable mooy maanaam lu sax dàkk nga xam ne ndekam dañ koy wax émergence mooy di ku jëkk di nooyi di épanouir def li la neex am loo bëgg mhm. di ko def loolu boo koy def ci famille nga koy njëkkee boo jógee ci famille doog ñëw fa nga dëkk ci localité bi boo jógee ci localité bi di yéeg di yéeg ba ñëw niveau national mhm. loolu pour mu am il faudrait que yii ñu xeex ko dindi ko ci suñuy façon def parce que li façon loo xam ne nekk bokkul ci ñun te lu bokkul ci ñun dañ koy dindi mais bu dee nekk bokkul ci ñun te nga xam ne mu ngi fiy am il faut ay charte yu yoo xam ne dañ ciy wax mhm. pour que bés bu jotee ñu xam nit ki dinañ ko jël yóbbu ko fi mbaxane nekkee benn pour ñu war a mun a atte mm. te atte boobu yooyu yëpp dafa am gunge bu war a am mooy ñun ñii nga xam ne voté nañ ko muy ñi nga xam ne ne ay organisation yi ci nekk la muy tamit gouvernement bi nga xam ne ne dafa teg ay banqaasam pour ñu war a mun a suivre loolu mm, ak tamit ñi nga xam ne am na ci solo trop muy yéen ñii di journaliste yi parce que nag journaliste yi si fépp muy ci ndorteel bi ba ci cappaandaw ba mm-hmm. da ngeen ci am toogaay ak noo xam ne da ngeen ko ci war a mën a defee donc dafa nekk loo xam ne dañuy wax société société boobu mooy suñu famille tey te ku nekk da am rôle boo ci joué am rôle boo war a toogee am li nga xam ne ne da nga ko war a véhiculer. d'accord honorable merci beaucoup. c'est moi qui vous remercie Elisabeth.